bismillahi arrahmani irrahim wasala allahu ala sayidina muhammadin waala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radia allahu tabaraka wa taala an saxaabati rasulillahi sala allahu alayhi wa sallama wala xawla wala quwata illaa billahi alcaliyi alcazimi yaa himmata sheikh ixduri lana bi hada almaxdari tactifi bi nadratin tati lana bi zafari alxadiisu alxaadi cashar xadiisu fukkeel ak benn nee na an abi muhammadin taawam la moo tax ñu ko koy dàkkantale jële ci bàyyi muhammad alxasan mi ngi tudd sayiduna xasan bini ali doomi sayidina ali bini abi taalib doomi abdu manaaf ñu koy dàkkantale abu taalib sibti rasulillahi kii ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaaree ci doomam bu jigéen bu ñuy wax ndey fatimatu waaw ah, sibtu boo ko déggee rekk mooy doomi doom ju jigéen xafiidu mooy doomi doom ju góor sibtu mooy sët boo xam ne ci doom ju jigéen la jaare xafiidu mooy sët boo xam ne ci doom ju góor la jaare yonentu sallallahu alayhi wa sallam non seulement xasan sëtam la waaye def na ko sax doomam ndax bés nee na sama doom jiidee sang la wa rayxaanatihi rayxaanatu mooy alzahratu altayibatu raixati fleur fleur bu neex mm-hmm. euh, odeur mm-hmm. lañuy ñuy tuddee rayxaanatu mm-hmm. ndax yonentu nee na xasan ak xuseyn ñooy sama rayxaana ñooy sama parfum hmm? ñooy sama parfum radiyallahu taala anhuma yal na yàlla gërëm sayidina xasan ak baayam sayiduna ali ibnu abi talibin sayiduna xasan lu mu ci yonantu qaala mu nee na xafidtu man dee wattu naa li may gune bi fi yonant bi di jógee mokkal naa ci moom xafistu man dee wattu naa xafistu mokkal naa mm-hmm. min rasulillahi déggee ci sama maam rasulullah mm-hmm. sallallahu alayhi wa mm-hmm. baat yile daa baxal ma loo xam ne yaribu dana sikk la ilaa maa jëm ci loo xam ne laa yaribu ko du la sikk baxal lépp loo xam ne leerut la jëm ci li la leer mm. lépp loo xam ne mm. wérut mm. jëm ci li la wér lépp loo xam ne yaa ngi ciy sikk sàkk jëm ci li nga wóolu mm-hmm. rawaahu tirmidiyu wa nasaiyu mm-hmm. wa qaala tirmidiyu xadiithun xasanun saxiix mm-hmm. lu tax xasan ak saxiix danañ ca dik seydna xasan mooy taaw saydna ali ibnu abi talib ak sayd saydatuna fatima xam nga doom yu jigéen la am mm. bu jigéen ba mooy zeynabu mm. moom la mayoon abul aasi mm. mu jurta umamatu ak aliyu roqayatu topp ci ak ummu kulthum ñoom la mayoon ñaari doomi aba lahabi ba ñuy euh, gone xam naa dañoo niroog saalum-saalum ci aada ci mm. teel a maye wala sax Haalpulaar mm-hmm. ndax ñoom jotuñoo sëy mm-hmm. jotuñoo consommer seen mariage mm-hmm. ba tabat yadaa abi lahabin wàccee nag seen bàyyi na leen fokk ñu fase ñaari doom yonentu yi sallallahu alayhi wa ci la jël roqiyatu may Ousmane roqiyatu Ousmane am nañ doom ju tudd Abdoulaye roqiyatu dafa teel gaañu bi ñuy jógee Badr Mm-hmm. ci lay gaañu mm-hmm. looloo taxoon Ousmane mënutoon dem Badar ndax mu ngi ko doon toppatoo ci feebaram mm-hmm. waaye yonentu ko ci ñu bokk Badar jox ko sax cëtam diir bu gàtt lañ ca teg doom ji Abdoulaye gaañu moo tax Ousmane daan nañ ko dàkkantale Abu Abdoulaye bu dee sax taawam abu am taawam Amr la tudd waaye mi joge ci doomi yonentu daan ko neex ñu ko koy dàkkantale dégg nga ko Umu Kulsum ñu may ko Ousmane waaye moom amut ak doom Ousmane ndey Fatimatu nag moo gën a doggu ci doom yu jigéen yi gënta doggu nag ci doom yu waaye doom yu jigéen yi moo ci gën a doggu ne bu dee doom yu yonent yi ndey moo mag Abdoulaye moo mag Ibrahima Seydina Qasim nag moo mag ci góor ñi mm-hmm. Zeynab mooy taawu yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. tamit dafa teel a gaañu mm-hmm. Ibrahima it noonu moom mu ngi juddoo Madina ñëpp nag gannaaw Ibrahima rek eh, eh, nday Xadijatoo leen jur radiallahu taala anha nag ñu may ko Aliyu gannaaw Badar tamit lañ ko may Aliyu mu ak Aliyu juróomi doom hmm. ñetti yu góor ak ñaari yu jigéen hmm. ñetti yu góor yu ñooy Xasan hmm. ak Xuseyn ak Muxassan Xasan nag moom dafa teel a gaañu Xasan ak Xuseynu nag ñu bari dañoo jàpp ne ay e, seex lañ rawatina wolof yi waaye Xasan moom ak Xuseynu magee na ko at moom mi ngi juddu ci ñetteelu at ci gàddaay gi mm. maanaam bi yontu sallallahu alayhi wasallam mm. ba am ñetti at mm. ci weeru Shaabaan am ñu ne déedéet ci genn wàllu maanaam bi Ramadan xaajee ci la judd mm-hmm. moom ak Seydina Xuseyn yonentu nee ñooy sangi ndawi aljanna mm-hmm. sayida shababi ahlil jannati mm-hmm. waaye Seydina Xasan hmm. moo gën Seydina Xuseyn hmm. moo tax ñiy wooteeg chiatu hmm. seenug aju ci Xuseynu gën a bari seenug aju ci Xasan ñàkk dëggu la nde buñ dëggu woon Xasan mag Xuseyn te moo ko gën te baax lool waaw waaye nettali gi ñuy nettali faatug Xuseyn dafa gën a mën a jeexital xol moo tax xëy na bokk na ci li tax ñu bari ci ñoom aju ci moom mm-hmm. Seydina Xuseyn shahid la mm-hmm. waaye Seydina Xasan it wax nañ ne dañ koo tooke mm-hmm. kon moom it shahid la sang la yonentoo ko ko seedeel ndax bés romb na yonentu ne sama doom ji dee sang la yàlla dana yewale ci ñoom moom ñaari kuréelu jullit yu mag loolu it mi ngi am ba nga xamee ne Seydina Ali ibn Abi Talib na fi mm-hmm. gannaaw bu mu istishhaadee mm-hmm. te kuñ rëbb ko Abdurahman ibn Muljim mm-hmm. jam ko ñett lañu ci xawaarij ñu déggoo ñoom daal danañ rey Aliyu rey Muawiyatu rey Amr ibn aas ki demoon Égypte pour rey Amr ibn aas nag bés boobu Amr ibn aas génnut keneen la digal mu dem jiite ji ndax dafa feebaroon mm-hmm. kooku la jam mm-hmm. ki nga xam ne moo demoon ca Shaam nag pour rey Muawiya jam na ko mm-hmm. waaye deewut ba docteur ba ñëwee ne ko ah, garab gi koy faj de buñ la ko joxee dootoo mën a jurati mu ne nañ ma ko jox rek ndax métit mi atatuma ko ki nga xam ne nag moo demoon ca Iraq mm. muy Abdurahman na Muljim mm. bi Seydina Ali yu génnee di julli ji ci la ko jam biñ ko jàppee nag hmm. Seydina Ali ne buñ ko rey hmm. bu ma jógee man danaa xam lu ma cay def hmm. su ma jogut nag bu leen ko lakk bu leen ko nangam benn nit la rey ngeen rey ko daal di dénkaane loolu weeru koor la woon mu gaañoo nag jullit yi jaayante ak na Xasan ndax Muawiya kat dafa bañoon a jaayante ak Aliyu waaye wootewut loon ne xalifa la dafa amoon lu ko naqadi ci deewu Ousmane gi mm-hmm. te maîtriser wut Madina ni ko Aliou maîtriser moom a nga ca Cham mm-hmm. mu noon nag nañ fayu deretu Ousmane balaañ ko balaa ñoo jaayante kenn mm-hmm. looloo indiwoon jafe-jafe ba xare ba am ci Seydina Aliou ak digganteem am Muawiya juum nag ndax Aliou mooy xalifa moo war a wax niñ war a def waaye njuumteem nag yóbboowut ko fi ko chia di yóbbu ak noonu lislaam yi ndax ab saxaaba la bu jege woon yonent bi daa ko sax bindal bu mm-hmm. wax yu wàccee mm-hmm. ku yonentu wóolu ci wax yu rek nit ku baax nga mm-hmm. te Muawiya it sang la biñ jaayanteeg Xasan nag Xasan gis ne euh, jullit yi depuis bu yàgg ñu ngi xeex toog na ci xilaafa gi juróom benn weer ci la yéwénoo ak Muawiya daal di ko jox ay condition Muawiya nangu ko mu daal di ko bàyyi xilaafa gi mm-hmm. at moom lañuy ñuy tuddee aamal jamaati atum mm-hmm. mbooloo mi mm-hmm. mu dellu nag ci li yonantu waxoon sallallahu alayhi wa ne sama doom ji sang la yàlla dana yéwénalee ci moom diggante ñaari kuréel yu mag ci jullit yi yàlla def na ko ci uh, jamonoom loolu xew na fanweeri at gannaaw fàddug yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallama xam nga bu fekkee ne bi yonent gàddaay ba am ñetti at la judd kon bi fi yonent bi di joge paasewul juróom-ñaari at ba juróom-ñetti at seetlu nga ko moo tax mu ne xafiztu min rasulillahi nga déggee ci ne li may do ne lii moom déggee naa ko ci sama maam ndax yonentu mi ngi fi jógee atum fukk ak benn gannaaw gàddaay gi moom mi ngi juddu atum ñetteelu gàddaay rakkam Seydina Xuseyn juddu atum ñeenteelu mm-hmm. uh, gàddaay gi mm-hmm. mu ne nag xadis ji moom mm-hmm. déggee naa ko ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam da maa yaribuka ilaa maa yari ilaa muy xadis ju wér ni ko tirmidi yu waxee ak nasaa yi solo tirmidi yu nag wax loo xam ne lu am solo la ci xam-xamu xadis mooy xadis ji xasan la saxiix na xam nga xadis juróomi xaaj la saxiixun li daatihi saxiixun li gayrihi xasanun li daatihi xasanun li gayrihi ak daif juróomi xeeti xadis moo am xadis joo xam ne dafa wér ak boppam juróomi condition yi tax xadis dajee yëpp dajee na ci moom xadis boobu saxiixun li gayrihi juróomi condition yi mooy ittisaalu sanad sanad gi dafay jokkoo dégg nga dabtu raawi ki nga xam ne daf ne moo ko solo daf am na dabt mooy ku mën a mokkal la mm-hmm. dégg nga wala du fekkee duut lu mokkali lu mu bind la lu wóor mm-hmm. duut koo xam ne dafay fàtte wala mm-hmm. dafay def dale wala dafay nàngam dégg nga xadis jiit dafay mucc ci chuduud muy jàdd xiyaas dégg nga mooy adamu chuduud dégg nga dafay féex tamit ci illa yi nga xam ne mën na ko ya mën na mën naa tax du wér mm-hmm. su fekkee ne eh, juróomi condition yi mm-hmm. daje na ci mm-hmm. xadis dañ naan xadis ji saxiixun li daati su fekkee nag ne benn ci yooyu manqué na ni ki waa ji ak mokalam demeewut noonu waaye am na yeneen xadis yuñ solo yu bari yu mel noonu buñ leen boole fay nekk saxiixun li xayrihi maanaam yeneen xadis dañ koy dëgëral mm-hmm. mu ne xadis bi wér na de waaye yeneen a ko wéral mm-hmm. dégg nga mm-hmm. wala muy xasanun li daatihi wala xasanun li gayrihi wala daif daif nag lépp lu daif ba ci mawdu sax daif la léegi nag kon nu ñuy waxee ne xadis ji xasanun saxiixun wala ñu ne saxiixun xasanun te xasan ak saxiix bokkuñ ñu ne bu fekkee ne xadis ji ci hmm. benn yoon rek hmm. lañ ko soloo hmm. buñ ne xasanun saxiixun mooy raawi ji dafay sikk sàkk ndax ci xasan rek la toll wala yéeg na ba ci saxiix su fekkee nag am na ñaari riwaaya moom xadis ji mooy am na riwaaya joo xam ne xasan la ca am na riwaaya joo xam ne saxiix la ca boobaa dafay gën a dëgëral xadis bu fekkee xadis ji benn riwaaya rek la bu ñu xasanun saxiix moo gën a lompañ xadis saxiix ndax ma ngay sikk sàkk hmm. bu fekkee am na ñaari riwaaya na ñu ne xasanun saxiix hmm. kooku wér ga dafa gën a foor sax bu saxiix rek hmm. te fii nag yow loolu la ci boole xasanun saxiix te e, bu ko defee nga nga gis ko da nga gis tamit yeneen xadis yoo xam ne danañ dëppoog xadis ji nii kon xadis ju wér lool la xafidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da ma yaribuka ilaa ma laa yaribuka mm-hmm. soo bëggee noppalu daal mm. lépp lu ñuy sikk mm. sànnil mm. nga daal di dem ca luñ sikkut mm-hmm. dafa am ci fiq lu ñuy wax alqawaid alxams mm-hmm. alqawaid alfiqhiya alkubra defe naa ne sax mos naa ko wéy nga xam ne dafay tax mu neex mokkal fa innama al aamalu binniyaati aw bilmaqasidi l umuurahaati wa asili darara id la darara wala dirara fi lxaditi qurrira wa caadatu lcibaadi qul muxakkama maa lam tunaafi sharcata almuxakkama maa lam tunaafi sharcata almuxakkima wa tajlubu lmashaqata taysira wa diinu yusrun yadfau tacsira humma alyaqinu laa yazulu abada bichakki ma dalilu qul aw yajida fa hadihi alqawaacidu alfiqhiya wa xamsuha alkubra hiya alasliya wa ziida icmaalu alkalaami awlaa yaa saaxi min ihmaalihi wa aclaa dañuy wax ne juróomi xawaayid yi ñooy xawaayid yi gën a mag hmm. yi nga xam ne lu bëree bëree ci banqaasu fiq ci hmm. ñoom la banqaasoo hmm. mooy al umur bi maqasidiha li ciy cosaan mooy innamal amalu binniyaati euh, juróom lu ëpp juróom-ñaar fukki bunti fiq ubbeeku na ca beneen ba mooy ad dararu yuzaalu lor dañ koy dindi li ciy cosaan mooy laa darara hmm. wala dirara ñetteel ba hmm. al aadatu muhakkama wa aadatu al ibaadi qul muhakkama aada dañ koy atteloo hmm. fekk dàqowantewul ak sharia ndax xudil afwa wa'mur bil urfi la yàlla wax wa'rid anil jaahiliin ñette ñeenteel ba wa tajlubul mashaqatu taysira coona dafay bijji ak yombal wa diinu yusrun yadfau taasira yuridullahu an yuxafifa ankum yuridullahu bikum lyusra fa inna maa al usri yusran at ma saqo taj li bu tey fu coono amee rek nof laay dikk yii nii yëpp bu ci nekk nag mën nga ci indi ay millions yi bànqaas ci wàllu fiq biñ ci soxla nag mooy bi thumma al yaqiinu laa yazulu abada bi shakk ma dalilu qul aw yajida waaw Mhm. al yaqiinu laa yazulu bi shakk mhm. lu wóor du mhm. dañee ci ak sikk ah, li mu li wóor ne ca li sikk sànnil rek luy cosaan la nga ne aw ya jidaa mooy xadiisu yonantu sallallahu alayhi ku ne di julli dem ba ca biir mu def def ne am na lu génn ci moom mu ne bu mu dagg julli ga feek déggut baat mbaa xetu ngelawal xeeñ ko mm-hmm. euh, ndax li wóor mm-hmm. mooy laab gi mm-hmm. lim sikk mooy ndax dara génn na ci moom kon nag lim sikk du tax la mu la wóor yàqu xad euh, euh, xadis ji nag ak qaayida bi borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci waaye niñ koy jëflaan niñ koy jëfandikoo nag am nañ ci ak wuute ak imam malik ci ay sifaat ay ay ay cas hmm. xam nga hmm. euh, koo xam ne nii hmm. wóor na la ne jàpp nga boo demee bam ci kanam nga bëgg julli nga sikk ne ndax njàpp li toj na walla tojut jumhóor dañoo wax ne li wóor mooy njàpp li am na li nga sikk mooy ndax toj dikk na kon nag dangay jàpp ci li wóor te dem julli ci foofu la imaam Maalik wute ak ñoom mm, mm. ne njàppule mm. lu tax ñu di ko def mooy julli danga julli dafa bokk ci ay sartaam njàpp te julli ne gim nekk farata ci yow lu wóor la -hmm. lu wóor loolu nag njàpp lu ñuy sikk wér naam wérut mën ko dindi -hmm. fokk njàpp li wér kon -hmm. pour mën a dindi zimmatu salaat yi gi nekk ci sa baat Hmm? foofu la wuuteeg ñoom ci tax ci ci ci ni ñuy appliquer hmm. euh, qaayida bi hmm. waaye ñoom ñëpp d'accord nañ ci qaayida bi léegi nag euh, kii moom njàppam dafa fireeku ba mu leer ko ne ko fireeku na mu dem di julli ji di sikk sàkk ndax bi muy jullee ba pare muy sikk sàkk ne man waaw sama njàpp luy firée ko woon na ndax man jàppaat naa ci diggante balaa maa julli wala jàpp moon hmm. li mooy firée ko njàpp hmm. muy sikk hmm. mooy amaatuk njàpp balaa moo julli kon lu muy def dafay dem jàppaat julli boobaa dugg na ci lu wóor su jàppaatut jullim nga baaxut ndax mi ngi ci sikki sàkk daamaa yaribuka ila ma la yaribuk mm-hmm. li muy sikk fii mooy wérug julli gi mm-hmm. lim sikkut mooy su ma su fan la ñàkk sikk di dikkee mm-hmm. mooy su demee jàppaat julli su demee jàppaat euh, julli dax ma yaribuka ila ma la loolu nag fekk nit ki amul waswasa su fekkee jaam bi nag dafa am sikk sàkk koo xam ne daf ko sonal ba yegg ci darajaay waswasatu kooku dootul gestu sikkam mhm. dootul mhm. nit ku normal su julee ñaari rakk di sikk ndax ñaar lam wala ñett mhm. wala muy sikk ñett laam wala ñeent ci julli dafay dellu bana alal yaqini bu may sikk ñett laam wala ñeent li wóor mooy ñett li sikk mooy ñeent ma ko indi beneen muy ñeent bu fekkee nag ne lii daf may dal jamono ju nekk dootuma gestu sikk ba mm-hmm. su ma sikkee ne ñett la wala ñeent la naa jàpp ne ñeent la mm-hmm. noonu lañ koy noonu lañ koy faje mm-hmm. du noonu bu fekkee nag ne sikk gi dafa dikk gannaaw bu jaamu gi amee ba noppi sikk sàkk duñ ca duñ ko duñ duñ ca duñ ko gestu bu fekkee jaamu yàlla jeex na ba pare hmm? maanaam dama julli ba pare dem bay dox yi samay soxla mu ne waa man bi may julli tisbaar léegi ñett laa julli wala ñeent hmm. dootu dootuma gestu sikk ga hmm. ndax sikk sàkka gannaaw bu jeexuk jaamu yàlla hmm. kenn du ko gestu da koy bàyyi tawaaf naa ba dem julli ñaari rakkaay tawaaf yi ma toog mu ne waa man sànq bi may tawaaf juróom-ñaar laa wër wala juróom benn gannaaw tawaaf gi julli gannaaw jaamu gi jeex na du ma delluwaat ca loola lu dul mu wóor ma nag ne juróom benn laa wër wala mu wóor ma nag ne ñett laa julli su fekkee sikk sàkk la hmm. du ma ko gestu sikk sàkk gannaaw jeexu jaamu yàlla hmm. kenn du ko kenn du ko gestu hmm. achakku baada alficli laa yundaru la kadaka kadratu shukuki muhmala mu ngi ci abyaat yooyu ma doon def ci alqawaidu alxams kon loolu ci wàllu ak jaamu yàlla la ci wàllu waraaw tamit wàllu càmm tamit lépp loo xam ne nii yaa ngi ciy sikk rek teet ko dem ci li nga xam ne yaa ngi ko wóolu yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na al ithmu maa xaaka fi sadr wa xachita an yattalia alayhi nnaas bàkkaar mooy li wokk sa dënn nga ragal nit ñi Hmm. xam ko hmm. wax na ci xadisu waabisa hmm. istafti qalbak déglul sa xol laajal sa xol wayn aftaaka naas lu la nit ñi mën a wax na nga seet li la sa xel wax na nga seet li sa xel dal bu sa xel dalul rek xamal ne baaxut ne baaxut moo tax daa maa yaribuka ila maa la yaribuka jàngoon nañ ci xadis jël li dagan leer na mm-hmm. li xaraam leer na ci diggante bi am na yu lënt mm-hmm. soo bëggee sa diine mucc mm-hmm. soo déggee sa càmm mët lépp lu la sikk loo xam ne yaa ngi koy sikk sàkk dem ci li nga xam ne euh, sikk sàkk woo ko lépp loo xam ne lënt na baxal dem ci li nga xam ne euh, leer na da ma yaribuka ba lépp loo xam ne hmm. leerul la hmm. ila ma laa yaribuka hmm. jëm ci loo xam ne leer na la loolu nag ci jaamu yàlla yi la ak ci muamalaat yi ak ci lépp loo xam ne ni jaam bi mu ngi koy def maa ngi bëgg a def dara ñu ngi weerante dagan nag daganut ma naa jàpp ne dama ko war a bàyyi ba leer ma moo tax borom xam-xam yu bari hmm. bëri na lu ñuy wax ne sib nañ ko hmm. fekk dañuy werante ndax lii lu xaraam la wala xaraamul hmm. pour ñu sàmm ñu ne sib nañ ko bu ko defee duñ ko def ndax bàyyil maa loolu yaribu ka dana sikk la ilaa maa jëm ci loo xam ne laa yaribu ka du la sikk yal nañu yàlla defal dégg mm-hmm. defal ñu topp hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amin yonentu ku xasaaxala alayhi salaatu wassalaam